dund leen màggal tuba atum 2024 ci almouridia ak ci sunuy réseaux sociaux maanaam mbaalu jokko yi ngir bañ a wuute dara ci màggal gi wéy leen di seetaan almouridia ci TNT canal 13 canal plus 226 ak Eutelsat W16A almouridia TV moo leen di ñaanal màggalu jàmm dañu ñëwoon pour participer ci effort yi nga xam ni moom la nit ñi di def ci ci màggal gi donc indi sunu doole donc pour participer ci ci ci ci màggal gi moo tax ñu ñëwoon ak camion yi ngeen di seen ni ci mel ni juróom benn camion bëgg nañ ko indi pour mu bokk ci e, dimbali waa tuubaa daal ci màggal gi incha allah ak gisaale xalif bi ziyaaraale aussi tamit saafonteeg waa Hizbut Tarqiyyah ñi nga xam ñooy doon suñu bunt pour ñëw tey Touba. ci affaire cartographie Touba ak yooyu yëpp ñoom dañ ci dañ ci avancé bu baax affaire institut bi muy wax yooyu yëpp ñoom dañ ci avancé bu baax ñun ci wàllum tourisme religieux dañ ci am beneen vision vision bu boo xam ni ça va au-delà de ci ay ñëw rek ziar mais ci même dugg ba ci li ñuy woowee l'économie halal donc ak les circuits religieux yi nga xam ni ñoom fii nii comme ni mu ko waxee ci mbirum cartographie moom muy wax liggéey ci ak isbu tarxiya dina tax tey tourisme religieux jël beneen paax nga xam du nit ki day jógee dëkkam rek ñëw fii ziar xabru yi ziar sëriñ bi dem mais fexe ba tey ku ñëw Touba am loo fi bàyyi loo xam ni dina jural réew mi dara dina jural euh, Touba dara dina jural tamit euh, maanaam suqali ba jaaykat yeeg ñu nekk ci biir Touba ku ñu ne di nga di nga ci gis sa bopp bu baax a baax a baax a baax Le Grand Magal de Touba édition 2024, événement à vivre sur Al Mouridia et sur l'ensemble de nos plateformes digitales. Pour ne rien manquer, restez scotchés sur Al canal sur la TNT, 226 sur Canal Plus et sur Eutelsat W16A. Al Mouridia vous souhaite un bon Magal. di ñu seetaan jaaree ko ci YouTube su ngeen bëggee jot suñu publication mën ngeen abonné Al Mouridiyyah TV te bu leen fàtte laal cloche bi.